non mënu ma may LPA mais dafay renvoyer dossier bi donc le 21 après le 21 boobu tamit euh, tombé woon ak juge yi ñoom la ñu waroon yóbbu si département ñu jiite commission euh, kii bi électorale yi. Mhm. commission départementale électorale yi. donc ñu yóbbu leen fa. léegi amaguñu woon date. Mhm. diggante boobu nag donc xawoon na metti parce que li gën a metti mooy nga nekk si biir kaso bi. xamoo ko ngay génn ba pare xamoo ban date ngay taxaw. parce que boo xamee date génn surtout ñëpp boo xamee ban dat ngay taxaw di nga xam ne man kat li des sama génn bëreetul. tout à fait mais boo taxawee yow xamoo ban dat ngay taxaw donc loolu mooy gën a metti souvent. Mhm. mais aussi tamit dañ ko dund ak gëm-gëm donc bu mat sëkk. parce que bu ma boo xoolee man sama sama chambre bi ma nekk rek parce que ñu ngi fa woon six détenus politiques ñu libéré cinq yëpp bàyyi ma fa. Mhm. yenn chambre yi ma denaloon ñoom benn talet ñoom ngañ démb Touré fa lañ nekkoon donc ñoom ñëpp ñu libéré leen ma des fa man kese boo xoolee secteur bi man ak benn paa bu tudd Dembo Sakho mu nekk 38. Mhm. donc euh, xëy na. Euh, gisante bi ñu daan gisante ak jëriñu politique yi daan xëy di waxtaan ñu ne ñoom Fadilou Keita daan xëy di def entraînement xëy na dootoo mënati lépp ndax li tax doo ko man mooy xay na ñu ngi doon àndal pour am moralu def ko gisatoo leen. Mhm. da ngay obligé di xëy di toog. voilà après voilà quoi nekkoon na lu ñu metti parce que li taxoon mu metti ñu aussi mooy dañu xam ne li ñu téye tegul si yoon. Mhm. dañu xam ne li ñu téye teguñu ko fenn bu fekkoon ne dafa am motif bu légal bu ñu téye ñu xam. parce que bu fekkee da nga ne loi bi loi admissible wara nañ ko. Mhm. nit ki loo ko yóbboo jugement pour lan la. Ah. ba ngay insister pour que ne day ñëw taxaw fort jugement. mais après bi ñu nee par la ma xam ah taxaw moom. Ah. donc am naa yaakaar ne bu ma taxawee dañ may bàyyi quoi parce que gisuma lu tax ñu war maa tëj. si lañ ma ñëw naa taxaw donc juge bi bi ñëwee wax dafa demandé directement procureur affaire procureur li ko wax mooy même chose que li ko waxoon le 7 mooy dana kii bàyyi ko mu dem parce que loi admissible da koo bàyyi ah. procureur bi yemul si cette fois parce que les sept taxawoon na ne ko bàyyi ko mu bàyyi ko mu dem mais mhm. bi wax mhm. ne ko même ñun magistrat amuñu droit di wax si dossier parce que dañu ko interdire kon libéré ko mu dem mu dem parce que kii dara loo ko mën a toppee mhm. mais teewul juge bi dafa téye fi mu téye parce que xamoon naa ne rancunier boobu la amoon

mais man wax dëgg yàlla tamit ak ngëm-ngëm bi ma am wunuma ko benn faiblesse. Mhm. parce que du ma ko woon benn faiblesse. àdduna du mas a neex ma taxaw naa ko noo maa ngi jéggalu ma taxaw naa ko non bàyyi ma ma dem may ma LP may ma dara déedéet. Mhm. maître Moussa Sarr man xam na si dara moment bi coow li di gën a bëri si bitti ku nekk di wax si dossier bi maître Moussa Sarr dama na ko maître bi la li laay war suul lenn laa lay ñaan parce que bu amoon na ay rencontre yoo xam ne doon na ko am ak donc euh, président tribunal demee noonu ma ne ko man xam naa ne dañu fi téye illégalement. Mhm. xam naa ne bu buñ may bàyyi tamit illégalement lañ may bàyyi bu bu mu la bu mu la jaral bu fekkee man rek nga bëgg ma génn bu mu la jaral nga def dara loo xamante nii bu ëllëgee da ngay sëgg seen seen seen kanam. Hmm. bu leen ñaan bu leen saraxu bu leen def dara. le 18 laay taxaw yàggatul malgré coono yi bëri na. Mhm. bàyyil ba le 18 ma taxaw te bu ma taxawee dañ may bàyyi ma dem ñibbi. d' accord maître Moussa Sarr aussi tamit moom faaw ma taxaw si kaawam. d' accord allez-y gis nga gis nga Waly maître Moussa Sarr. Mhm. man de man personnellement sax am na am naa lu ma bett nag si nomination yi parce que li tax ma am lu ma bett. Mhm. Euh, jàppoon naa ne maître Moussa Sarr waroon na nekk ministre de la justice. parce que xam nga la moo tax mhm. du question que dafa ma dafa ma dafa ma taxawu de mhm. wala du question que dafa yoroon dossier Diomaye de parce que moo yoroon dossier Diomaye de mais maître Moussa mhm. a doon wax naan gis ngeen bu ñu leen jàppee parce que da ngeen di manifester dinaa ñëw taxaw seen wet. Mhm. ma fexe ñu leen libéré ngeen génn. waaye nag bis bu ma déggee ngeen dugal ay saaga si li ngeen di def wala ngeen wax wax ju tegginiwul bu bu leen sax sonn bu leen ma woo parce que du ma leen défendre. Mhm. maanaam quelqu'un la koo xam ne dafa am ay principe yoo xam ne moom si lay dox danaan la boo saagaa ak loo man di xoolal doonal doonal kilifa dëkk bu dafa doonal kilifa gën a mag si dëkk bi mhm. ma la défendre. d'accord mooy da ngay tegu si yoon ma défendre la tegoo du ma la défendre. donc wax yàlla. Euh, nit mu nekk nit ku baax nit koo xam day yëkkati di ko def si ñun mhm. wala si man mhm. parce que maa ñu jàppee Gris Palais maître Moussa Sarr caleçon yi ko daan jënd dañu ko dugalal man ak mhm. nekk pour que ñu nekk si jàmm te pourtant fay ñu koo xamante ni man mënu ma wax si moom lu sori d'accord parce que nit la koo xam ne nit ku baax nit ku tabee nit ku am yërmaane si doomu aadama si nit ku nangoo sonn nit koo xam ne tamit avocat la mais activiste la koo xam dafay xeex ngir àq yelleef doom parce que la preuve ay journalistes yu bëri comme ay Papa Alé Niang ay Babacar Touré boo xoolee ñoom ñëpp moo leen doon défendre mhm. ay Sine Saliou Guèye ñoom ñëpp parce moom loolu la gëm principe la gëm te dafa gëm ne képp ku ñu néewal doole war na taxaw mu jàppale la donc moom it wax yàlla yéene woon naa ko trop ñu def ko ministre parce que gëm naa ne bu ko nekkoon non xaw lan mooy am lan du am si réew mi ban cofeel ak ban réaction nga njëkk am bi nga génnee ba retrouver wu sa famille famille bi nga xam ni presque def nga dix mois suma juum na. Ah. Mm-hmm. onze mois oh, euh, neuf mois. onze mois onze mois voilà fukki weer ak benn boo xam ne baanaka benn weer moo moo mu nekk at euh, ban ban voilà maa noo ko dundee sa famille bi nga ñëwaatee ak société bi. waaw bi ma bi génnee. yàlla mbégte ak ah. parce que mm. voilà bi ma génnee buntu Rebeuss d' abord euh, fekk sama camarade yëpp taxaw ñoom Yolande Camara mm-hmm. donc. Euh, voilà mënuma lim ñëpp parce que bu ma limee damay juum. Mm-hmm. ñoom ñëpp ay ñoom mbay Mbaye ñoom ñëpp ñëw taxaw donc di ma di ma tertu. Mm-hmm. maanaam bi ma génnee gis mbooloo bi ni ñu bëree. ma gis ay mair yoo xam ne maire yu màgget taxaw te man rek lañ doon xaar pour ma génn. Mm-hmm. tellement que affaire bi daf ma benn cofeel. cofeel bu rëy boo xamante ne nii. ma gën a am fierté sama bopp. parce que pourquoi ma gën am fierté sama bopp parce que dama ma gën am fierté que ne man kat li ma doon xeex la. parce que askan bi yëpp ñëw nañu taxaw si soutenir ma jàppale ma. Mhm. donc aussi même même même cofeel googu laa am aussi même même mbégte moomu bi ma gisee aussi sama famille. donc famille boo xamante ni nii xëy na mosuñu ma comprendre ci xeex bi famille boo xam ne xëy na wax nañ lu nekk pour ma génn si xeex bi donc voilà ñoom it ma gis leen ñoom it ñu am benn compréhension boo xamante ni nii comprendre que ne ndekete kii kat li mu doon xeex lu dëggu la lu tegu si yoon la. Mhm. parce que la preuve. Euh, Ousmane Sonko si kaso bi la nekkoon génn tey nan la nekk mi nekk premier ministre. Mm. Bassirou Diomaye Faye génn na tey jii moo nekk président de la république. Mm. donc ay ministre génn nañ ñu def ay ay DG génn nañ def nekk ay DG. Mm. donc après ñoom dañu xam ne ñii ñi li ñu doon xeex. donc dëgg la woon mais xëy na ñoom ñoo comprendre woon d'accord donc moo tax wax dëgg yàlla ñu bëri sax ñoo xamante ni xëy na ay temps daan nañ ma ŋàññ wala daan nañ ma yedd parce que aussi lu normal la ñu yedd ma donc mm. dema noo concentré wul sa liggéey xam nga taxawal nu fexeel noo sampee kër sa morom yi ñu lay raw parce que mm. loolu que dañu gis ne say morom ñu ngi lay raw parce que say morom ñi takk soxna mm. ñi ngi kër yow defoo si dara donc ñu ne raw mais après bi ma génnee ma gis ñoom ñu am benn fierté si man te pourtant dañu ma doon yedd tout le temps di ma naan bàyyi li mais dañu am benn fierté. ka mhm. ne ah yow kat li nga doon xeex lu dëggu la tey jii kat moo ñu indi li ñu am parce que tey jii bi xeex bi amee lan doo a comprendre que ne. ndaka di yéen bi ngeen ñuy woo bu ñu jugoon taxaw lii du am hmm. mais malheureusement ñun dañu toog parce que boobu comprendre ñu woon dañu toog di seetaan dëgg la donc moo tax mbégte daal ak kontaan bu rëy rëy laa si am si moment bi d'accord xam na xam naa hmm. waxtaan bi yaatu na waaye euh, as néew rek moo ñu desee si waxtu ñu ñëw ko si actualité bi nga xam ni euh, mooy euh, régime bi gouvernement bu bees bi gis nañ nomination bi nga xam ni sax si DG yi la wax nga ko tout à hmm. ñu wàccee général Moussa Fall bi nga xam ne tout à l'heure yaa ngi indi euh, beneen euh, général boo xam ne tey jii moom moo daal di yor euh, li nga xam ni moom moo moom moom moo nekk actuellement au commandement de la gendarmerie moom moo jiite CDC di caisse de dépôt et réconciliation ak yeneen. Mm-hmm. ban jàngat ngay def si li nga xam ni moom moo di nomination yu ministre. d'accord allez-y xam nañ mm-hmm. damay jël Olivier Boucal. ak Fadilou Keita Kayta mm-hmm. Olivier Boucal bi nga xam ne tey moo nekk fonction publique Fadilou Kayta bi nga moom fa doon liggéeyee nag tout à fait gis nga Olivier Boucal mm-hmm. euh, li tax bi suur bi ñu ko falee parce que si kaso bi la ma fekk ma am si fierté ak mbégte mm-hmm. kaso bi ñun côté bi ñu nekkoon nga xam ne fa la nekk ñun ñëpp sàmbur yëpp dañ doon tàcc bi ñu ko falee parce que nit la koo xam ne nitu kese la maanaam nit la koo xam ne da nga naan kii kii nit la nitu kese la te pourtant mi ngi woon trésor nekk fa inspecteur. di fayeeku xaalis bu dul jeex. Mhm. mais gis nga ma wax dinaa wax benn wax sax boo xamante ni xëy na moom mën na bañ a bëgg ma du bëgg ma wax ko mais dinaa ko wax loo xam ne dina bett sénégalais yu bëri. Olivier Bougal ni ngi ko jàppee aéroport. Mhm. mu ju mu voyagé woon bay ñëwaat. Mhm. defoon benn vidéo di wax si Ousmane Sonko. ñu jàpp ko. baa xam nga ne Olivier Bougal durant bi mu nekk si kaso bi yëpp salaire bi nga xam ne moom la doon fayeeku. muy ci trésor public baa xam dafa suspendre salaire bi xam nga pourquoi hmm, parce que dane pour léegi ñu jox ko ko nañ jël xaaj ñu def ko si keesu état hmm. parce que mënul malgré dañ ko tëj si kaso bi mais du nekk si kaso bi di continuer di fayeeku salaire am di ko lekk hmm. day suspendre salaire am di ko jël di ko def si keesu bi du laal benn dërëm malgré millions yi mu doon fayeeku xam nga ne tey jii kooku boo ko defee ministre mais est nga xalaat ci moom muy détourner ala alalu askan bi. d'accord dina dina adapté dina am adaptation par rapport ak rupture bi nga xam ni tamit gouvernement bi ñu koy wax. parce que ay millions millions yi xam ne waroon na ko am daf ko suspendre ndax lan. Mhm. parce que dafa gëm ne lu mu liggéeyul waru ko laal. Mhm. te jii kooku noonu boo ko namee ministre xam nga ne kii xalaatul muy muy muy muy détourner li nga xam ne moom mooy alalu askan bi. Mhm. yaa ngi dégg daan yaa dégg mu nekk nit ku am ay principe nit koo xamante ni nii nit ñëpp lay waxal am ak ñëpp. koo xamante ni nii voilà quoi mënuma sori si moom parce que voilà am na yoo xam boo ko waxee rek. donc dina mais général Moussa Fall bi ñu wàcc bi ñu wàcc aussi Fadilou mu nekk ma. Mm-hmm. moom it mu nekk bëgg Seydina Mouhamed. Mm-hmm, parce que nit li nga dund ak moom rek loolu nga koy seedeel. tout à que tout le temps si waxtaan boobu loolu la doon waxtaan. Mm-hmm. mu nekk koo xam dafay julli si yonente bi lu bëri. donc suuru gàmm mu togg ay xéewal yu bëree bëree bëri donc indi ko si kaso bi. donc gars yi yëpp lekk ba suur mu jën tellement que da doon jël xaalisam di ko dépassé donc si biir kaso bi Fadilou Keita di ko def di taxawu détenus yi di jàppale ñëpp ñi nga xam ne ñoom la nekkoon foofu ñi nga xam ne seen loxo jotuñ seen ginnaaw mhm. donc muy jënd ay meew di jënd lu luñ soxla rek donc di leen ko indil mu nekk aussi nit ku baax chaque jour ñu doon nekk di entraînement donc séq ak ñëpp mhm. man dama am yaakaar si ñoom gouvernement bi na am naa yaakaar ñoom mais ñoom ñaar la ëpp yaakaar. d'accord muy Olivier Boucal euh, ak Fadilou Keita waaw. Mhm. dund gi ma dund ñoom loolu xëy na sax am na yoo xam ne warum ko woon nettali xam ko mm-hmm. pour xam ne ñii ay nitu ay nitu principe lañ ay nit loolu la def d'accord yaakaar naa ne loolu euh, euh, leer na comme ni nga ko expliqué euh, munul ñàkk tamit ñu ñëw si kaaw sa camarade Abdou Karim Gueye bi nga xam ni nitu dëgg la moom it bi mu génnee am na si ay coow yoo xam ne nii am na si diggante moom ak ñi nga xam ne ñoo di ñi ñëwee patriote parce que mm-hmm. umpule woo ko ne am na coow lu jug si diggante kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko mm-hmm. esprit patriotique bi nga xam ne moom Abdou Karim ngi koy wax ba am ñoo xam ne ñu ngi ko doon ŋàññi en tant que camarade euh, nitu dëgg valeur ban ban ban ban commentaire ngay def si loolu. waaw xam nga xam nga xam nga wax maa wax maa